waa cest à tax atte bi doyuñu ñeenti chose la bi ci jiitu dañoo salfaañe àq ak yelleefam ci naka parce que mënoo convoqué nit ki amut mandat dama ne hmm. amul arrestation buy wane ne nañ sarkile biir buntu këram hmm. amul arrestation buy wane ne amul droit génn amul droit dugg rayu nit deful crime jaay dorog hmm. dañ ko oo ci projet boo xam ne dafa war a uji tribunal bu ñu waree am lu ñuy sarkile nañ sarkile yoonu tribunal bi mu war a aw loolu defuñ ko deux jours avant ñaari projet yépp yi am wala ñaari ñaari renvoi yu am yëpp noonu la demee ñëpp di ko gis Ousmane ànd ak discipline ak yar ak respecté sénégalais yi ak respecté justice donte am na ci ñoo xam ne nañuy doxalee neexuñ ko mais respecté na leen parce que uysi na leen. Mm-hmm. ñu ñu ñu barricadé buntu këram barricadé buntu buntu cité kër góor gi àq googu nga teg waa te kër góor gi kenn du dugg kenn du génn da gis ku dend ak Ousmane kër am droit dem doxi fenn waaye day xalaat na su ma génnee sax du ma duggaat sama kër àq googu nga teg sénégalais yi pour lan. nga teg ko benn doomu sénégalais ay doomam di génn nga ne ko du génn soxnaam di génn nga ne ko du génn loola leer na ba xam jour boobu ndugg a ngi woon biir këram loola leer ba xam jour boobu lu mu lekk mi ngi woon biir këram loola leer ba xam ne jour boobu malade nekkutoon biir këram bu dul ak yeneen ak yeneen yoo mën a xam yoo mën a xamul nga salfaañe ak yelefam ne ko doo génn foo ko teg wala du sénégalais wala amul droit génn loolu doyut mu génn di uy ji un mois gendarmerie nationale du Sénégal

buñ salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yi buñ ne justice mi ngi ci réew ba pare ñu gis justice deux temps mooy baal ñi jàpp ñi loolu ñu ngi koy gis suñuy bët nii yow nga koy gis keneen di ko gis ak kii seetaan ak ñëpp. léegi yëpp am muy dem Bachir nga fekk ko ak ak yelleefam salfaañe ko tooñ ko feebar dikkal ko ci loolu mu am mu tëddale lu hôpital un mois nga mën a am passage yow mi jiita réew mi wala ñi la dar taxawkat ne ah nañ def ndànk suñ naataangoo bii di Ousmane Sonko kat am na tawat loo xam ne même ñun buñ ko buñ ko santaanewut ñun état peut-être am ñu ca ñoo xam ne maanaam olof Njaay nee na ku la yéey dee loo ku la yéene dee loo yooyu ma xeb ko nañ gëstu ba xam feebar bi am na am bu amee bu amul sax doomu aadama la Sénégal la ñoo ko war a protéger kon nañ bàyyi wàll dossier bi ba dégg yaramam ne dal na wala yaramam féex na ñu soog di xool neneen luñ def li lañ doon xaar ci ñoom mais defuñ ko dañoo dañoo maintenir le 30 bi ba tey ngay dégg ay nit ñoo xam ne tekkiwuñ dara toog naan tappale la toog naan nangam toog naan nangam la nit dana tappale Basir jógee këram dem hôpital Soma yow yaa ngi woon ci terrain bi sa morom mu ngi woon ci terrain bi ku ñëw ñu ne la mënoo dugg yaa ngi dégg mu tëdd 4 jours ou 5 jours hôpital këram ak hôpital Soma 2 2 mbedd moo ci dox lu tere kon mu toog biir këram ñu ñëw sampale ko fa perfusion 1 million bi mu fay foofu noonu ci hôpital Soma bi est-ce que xajutoon moo ci ko xam ne Ousmane laa xam ne moom gaspillage waxul ci dara liggéey la xam ñàkk jëriñu mais kooku tëdd ci l'hôpital nga yéne ko lolu mu retour nañu oolu ay ay avocat ñew mom moom nekku fa amul ko ko am amna ñu mu défendre avocat am France muy Juan Branco jugee France ñibisi ñu bàyyi ko ñu ñu bañ na du dugg pourquoi dugg ñu ne doon wax ay wax yu vulgaire jëmale ko ci président de la république wa président de la république africain yépp bu ñu leen dajale won président de la république mëna na leen gën ndaw si nga xamné yaangi yaa dégg euh, na France Marie Marie Le Pen ne bu jëlee réew France pas africain duñ tekki dara réew France mbooleem kuy jullit it dinañ lijjanti say jumaa ak say nangam ni muy taxawee France lan moo gën a radical loolu turki ba mu fa bëggee dem Erdogan dana ko du fi ñëw ba mu dem yeneen réew Afrique yi am fayda dañ ne ko bu fi tànk loolu doyut dalal ko privé ñu ko aéroport ko ah, euh, palais de la République ku mën a dalal ndaw soosu waaye mënoo dalal koo xam ne ni yow kese lay wax ak wala yow sa jëmm ji dafa bëgg dafa mën a gën a foor suñ maam yi ak ñun wala dafa mën a gën a foor jëmm mboolem africain yi te af te africain yi teguñu la ñun Sénégal kese ñun ñoo la fi teg te buñu la bëggee wàcce wàcce ndax ay carte te ay carte aussi tamit lañ la fi wàccee hmm. mais yii yëpp ay di di ko gis Bachir ne at bi Pastef war nañ cee mën a maanaam euh, kii kontaan beneen bi ci des ñàkk fayda weesuwul man bay Niang man xaw ma sénégalais la xawma manam réalité sénégalais ni mi doxé da ko rër xawma dafa bëgg yépp askan bi tok def té point de presse nan ñu koy ñu 200 millions yi dafa tuti 29 milliards lay laaj bu mako ko bu ñu ma ko joxee soxlawu ma soxlawu ma samay mbokk am ci dama koy sarax ay daal. yow ba nga nekkee ci état du Sénégal ba légui yaangi sok di am xelu sarax ay daara ci xaaliss bo xamné da ngeen ci forcer nit togn ko ci jaay ko ci doole ñu jox leen ko muy xaalisu riba nga yéene ko wa daara yi. ñun xaalisu riba nga ñu yéene benn ñaareel ba ñu dégg sa wax nga ne du ma ko jox ku ma jege ñoo xam ne war naa leen a jox wala samay mbokk ah say mbokk ak ñi la jege ñoom nga def ñu yarawukaay ñun nga def ñu ay doomaraam ñun jàngalkatu alquran yi ak jàngalkatu alquran ñun ñoo la ëppale dañoo am loo amul dañoo am loo amul ci ñetti façon hmm. dañoo nekk sénégalais boo xam ne dañoo bëgg a liggéeyal suñu réew te duñ ñu jiiñ benn sàcc alal duñ ñu épinglé ci ci benn dossier ñu ci ñu jël dossier boobu di ko def dossier politique di ci taal réew mi bàyyi bakkan du ci rot duñ ko def mukk dañ laa gën ci jikko jooju gën la it ci jikkoy jullit mooy lan mooy yonent bi def ne bu ngeen joxe joxe leen la ngeen gën a bëgg xaalis ba nekk ci sa compte banque bi nga gën a bëgg pourquoi yéene woo ko askan askanu ñu yéene xaalis boo xam ne dañ koo sësir doomu aadama di ko jox askanu daara yow nga koy jëfandikoo ñaar ñetteel bi ñu gën la lan ñu gën la toogin toogin mooy lan mooy bu ñu fàttaliku 2011 yagul ya taxawante buntu assemblée nationale yek ci kaw tir ci kaw ki ba di xaacu booba escorteur nga yoron ba ngay dem tay yaa yor ay milliards yor auto bo xamne ni nii xalifa généraux yi ko fi ci rew mi bari wut dee amna salaire mayu lako ko ndax sa salaire bo buñ ko don dajale chaque weer ñu lay fay 2 millions 500 wala 3 millions même 5 millions sax nga génn ci sa location wala nga génn ci say dundu day jeex bokul ak yenen ak yenen bu len fonto nit ñun duñ ay dof bo amé sarax soy soy yene yene ko say mbokk yéene ko ñu lay jàppale ci sa kàcc yi ak sa ak sa ak sa nar yi yéene ko ñi nga xam ne yéene nga leen dund wala dee yéene ko ñi nga xam ne it maanaam maanaam askan bi ñoru leen ñun askan bi ñoo ñu ñor beneen bi la gën le mooy ñu jàng alquran te alquran ku mu nekk ci dënn yaa gën ko yaa gën ko dul moom ak koo mën a doon nag benn baat wala xul walaaw ahad rek ku mu nekk ci dënn yaa gën këm nekku ci dënnam ak koo mën a doon lii duñ ko am ba pare nga ñuy yàpp ñun duñ sa morom boo amee sarax boo amee sarax sooy jël si ñëwal ñu saraxal ñu sarax la ñu wala ëppale fuuf ndax ñi ñi nga ànd ak yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ànd ak jikko yu rafet yi ànd ak mag ñu baax ñi taal réew mi te yow ànd ak kenn yow alal ngay jàmm ak kàcc ak tuumaal gor goo xam ne moo la gën te démb ba réew mi tàng yaa ngi doon ut numérom daw di wuruxlu ci moom ngir dem ca moom première ma dajee tëjee si waajooj première maanaam réflexion sénégalais rek na kii day kàcc bi mu génnee ci tribunal bi juge bi àtte lu mu wax kontaan naa ci àtte bi ñu àtte mm-hmm. suñ suñ justice liggéeyam jaar na yoon nangam nangam nangam yow maanaam ño xam nga nañ lay vaar at sax waaye vaar benn fan fii nga ko waxee léegi dem ñu njort ne da ngaa jot ay pression yi wane ne yow da nga ñoo yeb ñun suñu dil dafa matagum kii lii terewu ko dem candidat justice bi li def xamoo ko nangam nangam nangam mu am réflexion au presse bi yëpp ne man sax daa ko a àttee parce que 29 milliards lañ ma war a fay ak 2 ans yoo xam ne da koy tëdd wa ne da koy tëdd wala nangam ak nangam Ousmane Sonko du demuju dem kaso noppalu leen. ba bëgg a këram. foofu laa <laughs> foofu laa jëm si xam nga yabaate weesuwut ñoom si kër góor gi moo leen xaj jàmm maanaam ñoom. Mhm. état bi ñenn ña ca bokk dëkk ak Ousmane Sonko moo leen xañ jàmm wala si kër góor gi wala privilège kër gi Ousmane Sonko moo fi dëkkoon maa ngi taasu ci barke bi coow la fi nekk rek waaye dañ koo fande billaahi wal kitaab bi bu ñu tëddee ñoom ñëpp moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy moom ñuy seetaan dafa am sama benn xaritu kilifa gu nekk ci état bi mhm. euh, du ma jaar du ma jaar ci turam dañu toog benn jour di waxtaan mu ne ma jàmbaar ma ne ko waaw mu ne ma li nga nekk muy dëgg mu ne ma ñun bu caaxaan jeexee dëgg des ku ne xam nga ko mën sa bàyyi waaye sa bàyyi la gënal Ousmane moo teree nelaw état bi li jiit ki jiite état bi ba ci suuf nag moo doon teree nelaw bu Ousmane Sonko maanaam privilégié maanaam ñoom ñaari problème lañ am bu Ousmane Sonko waxut dañu am problème lu tax waxut li lijjanti lu tax waxut parce que pour ñoom ñàkk wax gi bu génnee dina nekk bombu atomique boo xam ne nii seen faay yi dañuy def ci at mi yëpp wala ci semaine boobu yëpp dana ko toj. amaat problème mu aussi bu génnee wax ñu ngi ñu ngi mel ne ay ay ay sax yu njebal di burux ruxi di wax maam ñaar yi nag ku ko am doo doo xamante fooy toog yow doo xamante luy sa problème sa problème mooy nana wax wala du wax na wax wala du wax ñoom problème boobu lañ am ak askan bi beneen bi ñu beneen problème am njiit loo xam ne dafa war a wax te waxut dégg nga wax ji ba am problème Ousmane Sonko bu waree wax ak bu warta wax ñoom si seen biir it ñu am njiit lu war a wax te waxut mooy président Macky Sall lu mu war a wax mooy damay def troisième mandat wala duma ko def mom rek Macky Sall rek mo am Sénégal problème bu mënta wax man kat Basir bi nga soxla am nga sa problème dama ah, Cheikh dama bëgg ñu def interview man la war ñëwul xam nga wax ma sa problème sot na mhm. su kiliya bi amé problème am dana ma wax ma soxlaam dama fébar dama am soxla bi dama am soxla ba dama am soxla ba ñu waxtaan ci waye mom ba tey ñemee guta taxaw ak sénégalais ñeneen damay def troisième mandat amagul fit bobu am ñemeegu ko wa nit nak nit nak bo ba am mbir mo xamné at ñu ngi la ci top naan waxal nga ne wax xam nga ne ñàkk a wax mooy sa arrangement mooy arrangement peuple bi lii moo nekkoon parenthèse bu may def ci loolu bi ci des nag moom ñu noppal seen bopp Ousmane Sonko moom amul mbindeef muy interdit candidature vingt 2024 loolu amul. ah mais procès bi nag mu ngi en cours te mën na cee xew. dégg li ma la wax Bachir en cours ak en ré ak en avancé ak en arrière ak yëpp Ousmane Sonko amul mbindeef bu yàlla di sàkk ci kaw suuf bu mën a xañ candidature Ousmane Sonko 2024. incha allah bientôt 2024 it amul ku koy teree dem président de la république daggal liiteeku ñoom ñoo la ko gën a xam parce que nag Yékini ba mu xamee ne Balla Gaye da koy daan nii la demee woon rek Balla it ba ne Boy Niang da koy daan nii la demee woon sawaay coxle fi nekk rek waaye ku ne boo tëddee yàlla wax yu ne la ku ne it boo seetloo yàlla wax yu ne la te ñoom ñoo la dàq seet foofu xam nañ sëriñ su baax sépp mais ci mais ci biir loolu